ay ca mi ngi noonu kon du ñu def rek lu dul àndandoog yéen ci li nga xamante ne ni sénégalais yëpp ko doon xaar waaye rawatina nag àddina bi nga xamante ne nii sedd la nekk te xam ne ne bu sedd bi commencé ku nekk kay wéet fa nga toog te boo weetee nag ku ci nekk bu la sa alaaji mënta bégal ki nga bëgganteel mënu laa bégal kii génn ci télé bi rek la mën a bégal te xale yi nag dañ cliqué j'aime ci Amina Poté nee naa la ñoom dañoo jël seen loxo bi nga xam ne moo daan wax naan meew moomu ak a neex sa dëgg-dëgg ci lañ cliqué man mi Poté moo tax nii rek la ñuy àndandoog yéen nag daw di nuyu ñi nga xamante ne euh, ñoo ñuy seetaan nag ci émission bi nga xam ne mooy émission seetu bi tous les samedi mu ñu koy soog a euh, tàmbaliwaat tey di leen wax ne leen ñu ngi koy tàmbali tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na ko yàlla yeggali ci alhamdulilahi rabil alamina nee naa la kon duñ def rek lu dul dem nag euh, euh, ziyaar euh, suñu xalif général boobule Serigne Mountakha Mbacké Balaye Soubouré nee naa la fu ñu taxaw rek ñu ngi lay bëgge fu ñu taxaw rek ñu ngi lay ñaanal waaye fu ñu taxaw it ñu ngi sàkku ci yow ñaan nee naa la di ko yit ñaanal xalif général yi ci Sénégal yëpp rawatina nag xalif généraux yi nga xamante ne nii ñoo nekk fii ci réew mi tax réew mi macha allah rabbi neex am jàmm kon noonu rek la ñuy àndandoog yéen di leen wax ne leen nag euh, émission seetu bi euh, tey nag dafay spécial nee naa la émission seetu bi nag tey dina wuuteeg émission yi ne ci monde bi yëpp ah bu ma nee émission yi nekk ci monde bi yëpp c'est parce que kon je suis là Amina Poté ngeen jàkkaar lool man ma taxaw man maa leen di may li nga xamante ne moo ne ci plateau bi yëpp nee naa la ku ci gagné boo ma waxee sa tur ak sa sant ci yi nga xamante moom laa bëgg a maye keroog buñ la koy jox man maay taxaw ba nga xam ni man euh, lépp ma dig jox ko ko ay ca kon xam bi tey nag ni ma la ko bëgg demee ma ànd ceeg nag tey ay ndaanaan ànd ceeg ay xale yu am talent ànd ceeg ñoo xam ne dañ leen a war a wane sénégalais yi xam leen ñoomit ñu jël seen yëf ci mbir mi ndax ñoom it ci la ñu ay ca mi ngi noonu kon bu leen fàtte ni euh, dañ nekk fii nag fi nga xam ne mooy euh, euh, monument de la renaissance mu nekk fii ci côté Almadi Ngor gën a dend ak Mamel monument bi nga xamante Wakaam nekk fii ci Wakaam monument bi nga xamante ne nii nee naa la moo tax Wakaam fi mu nekk ñëpp gën a kontaan ci seen bopp xamante fii la lépp ndakaaru ne nee naa la fii la fii la junjuñ yi fii la kaaka yi fii la lépp nekk nee naa la fii duñ fi indi nag euh, n'importe qui kon TFM gàcce ngaa la ama yéen ba ngeen ñëwee ba wakaam nag ci monument bu rëy bi li nga xamante ne ku nekk bëgg na fee ñëw di ko visiter ngeen defi seen plateau yu rëy yi yànj yi waaye nag li ngeen di mayee fii rek la xaj parce que nee la lu rëy képp ku koy def da nga koy yóbbu fu rëy moo tax euh, ñu ànd cee ki nga xam ne mooy euh, teraanga Sénégal bu ñu nee teraanga Sénégal nag muy euh, koo xamante ne nii euh, dafa àndandook euh, waa groupe Futurs Médias ci fête yi nga xamante ne moom la ñu nekk di leen jox seen i teraanga nee naa la nag kay ma may la koo ko wax mu bàyyi la nga xamante ne moom la doon def wuyu si la waaye est ce que la nga koy may baax na ba tax na koon damay ñëw ci li may maye man tey nag bëgg naa maye oto <laughs> xanaa xam ngeen ma man nee naa la man lépp loo xamante ne caaxaan la duma ci dugg ndax du ma tas yaakaar du lenn lu nekkut ci man gaynde njaay laa te xam naa ko parce que ku ci peese sa bopp nag xam sa poids doo xaar ku la ko waxal moo tax oto bala ngeen di seen ñu def ci TFM daal di ci def King FM daal di ci def li nga xamante ne nii mooy euh, euh, gagné moi oto bi nee na ngeen gagné ko kon nag oto bi tey damaa bëgg kenn ci yéen ñu may seetaan gagné ko waaye bu ma paree ci oto bi nag damay dem ci jeeg ji nga xamante ne nii macha allah dañoo bëgg ay chambre à coucher boo nee chambre à coucher nag matelas bu baax maanaam orthopédique nee naa la am njegenaay ànd ak la nga xam ne mooy dem ca lal ba yëpp ak armoire u si batan armoire bii nga xamante ne moo xew ci jamono dama leen koy may tey kon nag préparé leen ci numéro yi ma leen di waaj a jox ngeen woo ma ndax xam naa képp ku am chance ba ma ne la yow yaa gañe oto bii wala ma ne la yow yaa gañe lal bee wala cuisinière wala nag yaa gañe li nga xamante ne moom la jeeg jépp bëgg muy ngalam li jeeg ji bëgg nee naa la lii rek jar na tey ngeen dem jënd ay crédit euh, jàkkaarloog man ci seen émission bi lee nga xamante ne euh, mooy euh, seetu bi ak seen xarit naa Poté mi leen di bëggal nee naa la man lépp lu ma la dig rek danaa la ko jox ndax képp kuy jël ci sa bopp di ko maye xam nga ne doo bàyyi luñ la jox pour nga maye ko te lii neenaa naa la groupe Futurs Médias moo ko teg ànd ceeg waa Teranga Sénégal kon nag woote leen jël ku ci nekk lay sa wërsëg parce que lii ku ne xaj na ci naa la kon duma def rek lu dul euh, lii ma fi wax lépp euh, dem ba ci pëkoo mais nga xamante ne nii moo ma war a bàkk nag parce que fii ma taxaw nii euh, maa ngi dëkku lebu yi fii ma taxaw nii ku ne xam ne ni maa ngi taxaw nag ci chaise lebu yi ndax maa ngi biir wakaam maa ngi biir almadi maa ngi biir mamel kon nag ana sabar bi pako boo leen paree rek mën ngeen ma bàkk ndey maas aji maas kaay sama sama sama xarit bii nga xam ne macha allah moom boo waxee mu ne ami Poté laa bëgg koo bëgg bëgg na la xale bu baax xale bu am talent xale bu ñëpp di xool ci réew mi kon ñëwal taxaw taxaw fii balaa sama euh, euh, bongomaan yee ma bàkk ay ca ay ca noo tudd sax am am damaa bëgg balaa ndey maas di wax nga wax ko xeteme aji maas aji maas bala muy wax dama bëgg nga yekkal ma ko tey xeteme ay ca ñëwal Aïcha mi ngi noonu bu leen fàtte ne numéro téléphone yi ngeen war a woote pour gagner lii nga xamante ne nii euh, mooy euh, lima leen fi li ma lépp euh, da ngay woote ci 88 628 à 72 à 86 mbaa nga woote ci 88 628 22 22 wala it nga woote ci 88 628 65 65 numéro yu neexee nii nee naa la 88 628 76 76 loolu musul am ci àddina Adji Mass lan nga wax ci li nga xam ne moom la TFM maye te muy dëgg ci ñoom ànd ceeg waa ak teranga kon xanaa war ngaa wax ci sama retour booga ñëw ay ca gaawle eh, ku dóor bal bi Fula bari fayda kenn yabagula way partage leen ko nekk léegi ci kanam Adji Mass lan nga wax ci retouru Amina Poté fii ci Sénégal ak fi réew mi toll dëkk bi daanu na ma bëgg sénégalais yi ngeen déglu ko bu baax ndax nee naa la réew boo fi nekkee nekk koo xamante ne da ngay def nit ñi di la bëggee bëggee boo wutul école bàyyi ko fi xale yi di ci jàng la ngay defit da ngay koppi defar ku mel ni yow teg ko fi déglu leen kii déggal li yow li nga def dafa rëy macha allah parce que nee naa ko tubarkàlla xale bu baax bu bëgg lu baax tubarkàlla bëgg a yegg fi nga yegg faamu ci yow dégg nga loolu nangu bañ tubarkàlla yow la fi yàlla teg dëgg neexul nga doon ku ñàkk ki ñaan nag macha allah mën li ngay def ndeysaan nekk ci pro tubarkàlla yow dan lay ñaanal gudd fan wér gu yaram dégg nga pro nga wax dama la ciy may lii pro déggal lii pro pro boobu nga wax dama ko ciy may pro <laughs> boobu nga wax la ci may pro bii déggal lii dama ne ko la lii nag kaay ma wax la da ngeen koy gañe de ku ci woote pro boobu mu wax sànq dama ko koy décorer ba pare képp ku woote ma may la produit tëyal lii déggal lii waaw natte lii dafa neex te FM nee naa ko preuve doyu lii li naan dëgg doyu lii dëgg doyu lii na ay preuve la dëgg yemul nii de ngi ne mu leer nañ chambre à coucher ngi ni mu leer nañ gazinière yi mu leer nañ dooy wax a picc rek di naaw ci air bi non non preuve tëyal sa micro waaw daan nañ def waaw waaw waay le retour bi yombul dëkk bi daanu na de waaw fi ne dëkk bi te a seen kër di seetaan <laughs> barke la Tyson a dugal million ci lamb ji waaye Amina Poté indi gone yi ci télé yi loolu dafa leer moo ñu fi indi de de yow ne ko noonu kon nag euh, madame nag ñi ngi may wax ne ma téléphone baa ngi toj tonton Pape bëggoon naa xam ndax am na wala bala maa tàmbali ah tonton Pape xaalis am na xaalis ah ay ca kon dinaa maye xaalis fii ma taxaw nii dinaa jeex na mille 100000 50000 nee naa la kon na yeen àndandoo gaaw euh, daw jëli téléphone bi ñu daal di xool ki nga xamante ne moo war a woote pour gagner oto bi wala xaalis yi wala chambre à coucher bi allo allo Aïcha Aïcha may ma may ma may ma kilibu Papa Diouf tuuti rek. boo mayee kili bu pap waa jox ma ko jox ma ko ay ca xëccal ma ajimaas noonu sawet mu waxtaan ak yow ba ma soxlawaat ko fii mu fekk ma file noo may tàggoo ngeen loo may léegi léegi de retour maa ngi dem defar équipe comme ni ko bëggee rek yaa koy defar liggéey bi ci nu mu muccee ay rek kon nag defaril équipe bi defal équipe jeex na à tout à l'heure ay ca mi kon euh, sama bongomaan yi nañ ñëw fii euh, taxaw ci sama wet euh, le temps que keneen di dugg ngeen organiser wu na ñuy taxaw nii ñuy taxaw nii ndax nee naa la fi ñu taxaw na ku ne xam ne ne ci digg dëkk bi la ñu taxaw ay ca waaw allo. ma chérie. Amina noo def. sant naa Serigne Saliou kooku kan la. nam moom la. ah moo taxit fi mu nekk banaa lépp mbay daal di jàkkaarloog yéen. kontaan nañ ci retour bi. fóot ma ma naaloo nag lépp fi mu ne nii dama koo dama koo banoonu rek daal di dëpp. gis mu nekk nii fan nga may woowee ku baax ki. maa ngi lay woowee ngi may woowee parcelle sa tur naka la. Euh, Souka njaay Souka Kumba Kumba. naka. Kumba Kumba. Kumba Ndiaye. am ñëw leen nii Kumba Ndiaye madame nan. Euh, madame Diop. Kumba Ndiaye madame Diop. Mm-hmm. lan nga amut loo xam ne bëgg nga tey euh, poté mooy maye mayee TFM moo àndandoog yéen ci fête bi. te incha allahu mm-hmm. rabbi lépp luñ fi dig nit wala kuñ fi tudd sa tournée la may nañ la keroog bu ñu yeggee ci joxe dañ lay filmer boo mënul génn say mbokk taxaw ñu génn ko bu dee oto bi la ñu jox la ko defoon nañ ko fi daaw. bu dee lal bële la ñu jox la ko defoon nañ ko fi daaw mhm. mhm. ay bu dee cuisinière nga bëgg yaay xool lan nga bëgg tey euh, li ma la fi proposé lan nga bëgg chambre à coucher bi la bëgg ay ca aji ci chambre à coucher bi eh dar leen ma ba ca chambre à coucher bi ma wax woon ko ni mu mel ba nuppi ubbil ko armoire yaa ngi gis ay yóbbu ma ci chambre à coucher bi ay ca jéggatal table à bi bongo man kañ la daan yambar gunge leen ko madame Diop mooy xolli boo ma dégloo tuuti dana mel ni lal am na coiffeuse waaw mi ngi nii preuve bi plante leen madame Diop yaa ngi gis coiffeuse bi maa ngi gis bu baax kay lépp macha moom looy toog la pour maquillage yaa ngi koy gis boobu lépp gis nga ñaari ñaari kamod yi gis naa na moom baax na neex na la neex na xaaral ma ubbil la nga xool du coulissant nag mais xam nga lan la armoire bu yaatoo yaatu la. fii ngay def yére musée gis nga ko. musée ay yére xale yi. Ah, def fii say yére. <laughs> Ah. daal di yóbbi gone yi ba nele rek ndax gone du dend ak mag. gis nga lépp. kon madame Diop fi mu nekk bu ma juumul day mel ne da ngay a jël lal bi ci kàttanu yàlla léegi. téye ah, téye toq. daal di la bàkkal monsieur ni lii boo ko gañee moom macha allah euh, euh, ndamam la. d'accord parce que loo xamante ne la lum la yéene la te xam naa ne njóobeen bu ñàkk jom amul Futurs Médias ñëw nar la koo may kon il faut que ñu bàkk monsieur Diop doog a ñëw wax ak yow ci nan ngay def pour ñu may la ko ayca madame Diop waaw madame Diop la TFM nee nañ waaw lu mel nii musuñu koo am sa crédit doy na macha allah wax ñu kan nga bëgg ci nga xam ki nga xamante ne mooy sa famille mu témoin lii nga xamante ne moom ngay waaj a gañee waaw muy yow yaa sa bopp ndax dañ fee teg oto nag mm-hmm. teg fi frigo mm-hmm. teg fi lal xam naa ñi may seetaan mm-hmm. ña nga naan poté nii lay def da koy téye mais ay million ku koy mayee danga waxtaan <laughs> jabar ku koy takk ba war a yóbbu waru gar du ngeen daje rek may jox ko ko mu dem ak moom waaye yow ku mel ni yow dana gañe yi am fii ndax ay woote nag dafa war a am patience ñu di la wéyal ñuy waxtaan ñu comp ci yow tuuti doog laa jox lal bi nga dem ak moom ah léegi nag léegi nag fi mu nekk nii xam nga naka lay def nga wax ma kan koo xamante ne nii Euh, tey buñ la mayoon ensemble chambre coucher bi kan nga yónni kan nga yaakaar ni moom nga war a yónni ku ma yaakaar moo war a yónni waaw wala yaa ñëwal sa bopp maa ñëwal sama bopp doo am jot waaw ma amulee jot rek na yow yaay ñëwal sa bopp waaw bu ma jot na yónnee soo amee soo amulee jot nga yónnee waaw tey yow lan ngay wax ci fête bi nga xamante ne TFM nii la def ak tegal leen oto tegal leen lal ak armoire tegal leen bagage yu waañ ba pare boole kook ay émission yu neex yu doy waar boole kook nag di leen souhaiter bonne fête. am naa kontaan te di leen ñaanal rek a yokku. waaw. waaw di ñaan rek mu gën a yokku. tànga bi moom daf ñuy dimbale moom ndax tànga yooyu nga ubbil fii rek nga déglu xaalis bu bëri kontaan rek. waaw. waaw kontaan rek. Aïcha. est-ce que xam nga lii lii nag moom. da ngay tijji fii benn wax ma ci yii ban nga bëgg a tijji boo ci tijj rek moom nga gañe bala may lekk sa crédit pour nga xam ne mbir mi du naxee tijjil benn ci yii ma tijjil la ban région de nga ne ca kaw ay ci gannaawam la nekk xëccal ma Sédhiou jox ma enveloppe bu Sédhiou ma xool lu ma am ci biir bul dem de mérito na dara nag incha allahu lal bi suba jàmm lañ koy tiire ma xool Sédhiou lu am ci biir Sédhiou de war ta ñàkk dara mbay eh Sédhiou am na xaalis mbay man naka jekk ma xam ne biddiwam bu baax la jox ma sa numéro gaaw alo non warul dem to pap kii de waaw kay jox ma sa numéro gaaw 77 gañe nga Sédhiou gañel na la enveloppe bu xaalis xoolal li nga gagné allo même boo demee yaako gañe gagné allo ay waay tono pap kii du demee noonu de lii la gañe moo ko moom de <laughs> ndeysaan wuy ma mais ndeysaan il faut que ñu lijjanti ko de kii il faut que kii kii du demee noonu nit ku am patience nii ah mais kenn allo waaw madame Diop madame Diop ñëpp daw nañ rési nag di lijjanti madame Diop moo ko gañe benn ñaar ñett ñeent xanaa lii fukki junni la xanaa yéen ñi may seetaan xam ngeen ne télé bi naxewul ah te bu gënee woote gañe leneen ak leneen ah cum ay ca ku koy nangul ay ca bongomaani ku koy nangu suñu demee demee suñu demee suñu demee hey 3G FM na moom TFM sorxo sorxo ay ca tonton Pape loo wax ci enveloppe bu fukki junni bi allo waaw waaw jëli nañ ko naka jekk nag ma xam ne télé bi ay raba fi ne allo madame Diop ak macha allah ka daw fas am na yoo xam ne enveloppe zéro la am mo allo allo allo waaw madame gis nga li nga gagné danga ngaa coupé ñu jëliwaat la ba nga ñëw pour wax la ne lii yaako ko mérito enveloppe bu fukki junni bii kontaan naa léegi lan ngay wax ci lii nga xamante ne yow sa bopp demoon nga ba rëcc ñu jëliwaat la mayaat la loxo indi la jox la fukki junni loo ciy wax. kontaan ci xam ne yéen daal yomb la gaañu. léegi na xam nga lu ma bëgg. waaw. tirage bi. suba ak mhm. jàmm ak salaam. Mhm. gis nga numéro bi nga woote ba dugg fii. waaw. incha allah rabi dinañ dugal sa numéro. incha def tirage bu mag bi. Pape Cheikh jàlloo waaw incha allahu rabi kum ci tudd turam rek nga xam ne war wërsëgam la mais yow am nga fukki junni perto ndax juróomi mu crédit gañ a fukki junni xam nga ne dara jarut lii. ay ca léegi nag nañ la jël nga wax ñu ku leer koo xam ne carte d'identité lay indi ñu jox la sa fukki junni. bul yónni woyu bul yónni quinze kat. jeex na ay ca ma demaat keneen ci ligne bi xale bu oyof kaay jox ma lii e am kaay jox ma lii. lii neex na de tonub ab samay mbokk munuñ dugg man li ma bëgg maa ko xam mais yow démb sama table à manger bala tànk bi dam lee laa bëgg gan gu doy waar laa amoon muy biij bii jël ba damm tànk bi rus na nag ndax lekk rek lu ci jar bëree ba yàq yi ay ca ma daal dem ci keneen nag daal di ñëwaat xoolaat keneen kan mooy tànn fii ku ko neex xam nga ne lii mbay ah yii yii yii porte yi danga naan koŋ koŋ ñu ne la benn porte man daal xam naa bu may gañee yàlla na nekk Jurbel Jurbel dëkk maam Bàmba ga kooku xam naa bu ma nee jurubel la ngeen jàpp ni ci kër gi laa dëkk ba tax ngeen tànn Jurbel foog ne xam naa li ci bën bën bii <laughs> ay yàlla boo leen fa fekk zéro allo waaw jox ma ko mu ñëw alo waaw eh, eh, bienvenue les tubaab vous allez bien yéen a ngeen jëy monde est-ce que Sénégal c'est bon waaw xam nga ne Aline Ndiaye sama public nii rek la mën a mel vous allez bien Euh, viens viens viens ici oui allô oui attends attends deux minutes je veux parler avec quelqu'un après je viens sur vous allô ok allô allô oui Amina chérie ça va noo def amoore mi yo ça yaa ngi ci jàmm maa ngi sant Serigne Saliou Mbacké bu wér a wér a wér ah yàlla na sant yaa ngi ci barke Alaaji Fallou Mbacké ay ca fan nga may woowee buñ jàmm sante ba pare maa ngi wootee Daara Jolof. yaa ngi wootee Daara Jolof. région ah waa Daara Jolof nag munuma leen a niilal yow fauteuil bee laala salon bële laala yéene ay ca euh, tur bi naka la bala ñoo ñëw ci loo yi. Mariama. Lo Mariama naka. Lo Lo. Mariama Lo nga war a dugg ci loo yi loo Siré Matia Ndaam kon xam nga ne fii tey dara du fi doy ay ca yow yaay madame Lo. madame loo am ñëw leen taxaw nii mu gën a yomb aloo dafa dem sa nawle bi njëkk a dugg gañe na fukki junni muy leer xanaa kenn dootul wax ni Poté day tas yaakaar mbay baal toog bi da ngeen di taxaw waaw nii rek ngeen di def ay ca dafa mel ni dafa dem ganaa ñolgu bi ngay bàyyi daal di ñëw nii ñu jàkkaarloo ñolgu bi fii du ay garabu koko mbay am kii mooy bongoman VIP man kii laa bëgg ay ca kooku dem na madame loo ma nga dëkk ba Linguère seen ransaloo bii ngeen mel ne kuy jël sarax na ñuy ñëw nii laa wax doole dañ koy wàññi boo nekkeek jigéen ñee dem ne am ah, mi star bi nekk nii ay ca waxalal madame loo dara nee naa la boobu ba tey mbir mi yàgg naa commencé waaye lu neexee nii defe naa c'est la première eh, dëgg neexul en ah, en ah, Adji Mass loolu Moustapha mais man xam nga rek damay mel ni touriste dama ko ñëw waa deel def lu la neex pivoté maa war a pivoté tey ay ca neexul pivotel ba mu neex ay ca waaw waaw waaw waaw <laughs> ñu demaat ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, loo bi am ay ca wàcc leen ay ca wàcc leen bu leen neexee it wàcc nii yéene xool rek ay ca mi ngi noonu kon euh, jox ma ko waaw ma soog a ñëw ci dédicace yi allo allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam fukki junni yi gañe nañ ko joxeel ma ko fee mu leer tono pa fukki junni yi génn na ci sama loxo mi ngi noonu di ñëw ci sa loxo am na deux cent mille cent mille fii am na deux cent mille cent mille téeméeri junni allo allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam maman chérie. waa pot poté na def. xanaa sant Serigne Saliou rek di leen bëggee. ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu baax maman. a baax. di bokk fii la ëppee. Eh, waaw kooku sama frère la wol ma ko Aline Tall la tudd samay daal la indi sama daal la daggoon sànq waaw Aline jox ma daal yooyu. <laughs> waaw jox ma ko eh jox ma daal yi waa mère samay daal la daggoon. allo waaw dangaa bëgg a dugg ci jeu bi waaw ay ca yow soo sañoon tey oto bi fi nekk ak ni mu yànjee waaw salon bee nekk fi ak ni muy Aline ñu ne nga concentré wu jël yii oto bi fi nekk ak ni mu yànjee waaw ak salon bee fi nekk ak ni mu yànjee waaw mais mère loo xam ci bët yi jooy bala ñoo ñëw ci jeu bi lu ma xam ci leen bët ngelaw lay jooy sama bët bi mbay fi ñu nekk féex na lool ah, xanaa ngelaw bi bàyyi la ah mais mère bu njëkk lan la mag ñi daan wax af wala calambeer ah fi ma nekk daa lan af wala dafa calambeer daa calambeer dafa kon maa ngi def nii sama baaraam bu ndaw bi mbay calambeer dama fi bàyyi <laughs> ay ca mama waaw xanaa xanaa sumi naa cerex yi gërëm lool <laughs> waaye jongo ma ko ket kado na def nii ay meer léegi li ma la fi limal lépp muy oto bi nga xam ne gagné mois la dañ ko teg pour yow. waaw. teg fi chambre à coucher bee nga xam ne nee naa la mat laa ba orthopédique la ba pare dubut li la. waaw. ba pare tegal la armoire bee nga xam ne si batan la yow ak alaaji bee gone yeeg euh, ganee ca kër ga. waaw. salon bee nag dañuy bañ buñ ko tegee ci salle bi gone gu ci toog ndax lee marque la qualité la du salon fowekaay boo ko gañee pour en waaw peut être tee maa doxantu ci salon ma nànk rek nga xam ne su ma amee gan sama gan yu baax teg leen fa. dégg nga. waaw. ay su su ma amee sama ay ganu VIP yu baax yu mel ni yow rek teg fa. yow kon salon bi nga bëgg. waaw salon bi laa bëgg. kon nag ci numéro tirage suba bi. waaw. numéro bii ci la bokk. waaw. dugal ma si biir a biir. léegi nag sa numéro dañ ko ciy dugal waaye dangay ngay woote waaw ci numéro yi ma lim sànq ak bi nga woote ba dugg fi léegi. waaw pour mën a pour mën a gañe ci goroloo yi nga xam ne moom laa fi tudd. waaw te du sànq sa nawle boobu. gañe fukki sa nawle boobu gañe fukki junni sànq te du dégg nga ko. dégg xanaa kon xam nga ne mbir mi amul naxe. jàkkaarloog moom tamit. ah kon kon yaa ko wax est-ce que man damaa yor kanamu taskatu yaakaar. déedéet <laughs> mbir mi nit ñi yàgg nañoo woote waaye maye bu leeree nii xanaa mi ngi soog am ci Tiwison. leer leer na naa ni seetu bi rek. kon mbaa ki gañe léegi mbir mi dinañ ko génne ci yees sociaux yi. waaw ah kon na ma kaay maam bi fumier. léegi nag <laughs> ma ñëw a yow ci ruq ji ne yii nga xam ne teraanga Sénégal ngay liir noonu ci kaw. waaw acca boog ñu ñu jàkkaarloo. ay ca ma buntu yi tey jii ñaata bunt fi ne ak boo bëggoon tànn ci bunt yi ban buntu ngay tànn ma dox ndànk ba ci les dégguma ma ne ma ne est du 14 buntu 14 la 14 raison la raison yépp a fi nekk yépp waaw waaw raison la muy 14 bunt waaw am na bunt boo xam ne nag moytu jaana fa ne boo fay dugal sa loxo na man boo naree dugg fu am luy matt rek naa ne su ma ne ndax bu ma waxee mën na su ma waxee mën na yàq sama liggéey mais del xool ci samay gestes su ma yëngoo rek mooy baaxul dawal feneen waaw <laughs> bu la neexee nag mën ngaa bañ a comme ça boo ñëwee ba Fatick bëgg a wax Fatick boo nee faa bu ma yëngatoo rek mën ngaa daw mais bu ma nee pat bul basé wu ci pat bi it mais mën ngaa def lu la neex su ma nee pat waaw sama yaay la juddoo yóbbu ah, kon ma yóbbu ba Fatick yóbbu ba Fatick waaw ah waaw. ah est-ce que Fatick bi du téeméeri junni baa fa nekk non man duma la yóbboo Fatick noonu. parce que ah yóbbu ma ah, la Fatick kon jeex na léegi nag fi mu nekk dama lay yóbbu Fatick. waaye bala ma laa yóbbu Fatick borom bongo VIP day ñëw ak ñoom Paco Lazaz groupe Mengen dañ lay bégal yaay madame nan ba nuppi madame Diop Maymouna. ayca damaa bëgg ngeen waneel ma ville Fatick damaa bëgg li gën a yànji fatik yépp ngeen génneel ma ko te xam ne damay ñaay ba fatik nii ayca loo wax ci madame madame nan. madame Diop Maymouna. madame Diop madame a gañe woon sànq. mën na ne man daal bëgg naa Ndiobé ni Diop a juba aaroon naa Roqe yaak Ndiaye. nee naa la ci waaye mbay kenn du ma xolli di pentiraat eh. waaye mère wuy ma fii du fi sa yaakaar tasee fii sa yaakaar du fi tas waaw waaw ñu dem Fatick xool lu lay jox comme fa nga dëkk waaw ay ca ñu doxantu ma ubbi Fatick ay ca ay xale bu góor ubbil ma buntu Fatick kaay aji maas yow taxawal rek aji maas kaay ubbil ma Fatick ma xool tourneel bala moo foog ne ñoo fa dugal sunu loxo waaw ubbil loo gis foofu ma xool Eh, waaw waaw nii la ay chanceuse rek a fi nekk mais ne borom mbir mi bu bañoon ku ko gañe du ko teg amoo wuyu ma sa yaakaar bu tasee fii it tasul Fatick <laughs> mbay tonton Pape est-ce jar na compter waaw waaw yaa ko gañe ba mu neex dañ la koy jox. ba mu neex de waaw waaw. cim cim cim. pote mu nar. pote mu nar. waay Amina Amina. allo maman madame Diop. ma maa lay dégg peut samay mbir a mel nii mbay. gis naa loolu affaire bi bu ci dara nekkutoon sax yàlla dana ma suturaal dara ne ci mbay ndax man yoruma kanam guy tas yaakaar. <laughs> ay kuy defanteeg man tubaab bi dama faa. mais déggoo li may wax te dégguma li ngay wax. maa lay dégg bu léegi mene waaw gañe nga fukki junni yàlla nga ko lekk mu rees ak jàmm ak salaam amin amin waay bu ko ci amin waay kon léegi nag numéro bi war a tax nga bokk ci tirage suba bi waaw mooy numéro bi nga wootee ndax yow macha allah ku gañe fukki junni xam nga ne boo insisté yóbbu lal bi dëgg la <laughs> dëgg neexul dëggantaan neex ku ci nekk ak sa biddiw te biddiw ngelaw la xam naa dana la yóbba ca lal ba waaw waaw léegi nag fukki junni yi yaa moom maa ngi koy jógee bëggoon naa cee teq junni sax waaye xam naa dama koy bàyyee ndax ci ngay paas. waaw. léegi nag kon sa fukki junni ah? maa ah? léegi jël si ko léegi ñu jox la ko bañ xam ne ñun duñu tas yaakaar mbay. maa ngi ñëw. yàqkat demal tëddi potee ngi doog a ñëw. cim yàqkat demal tëddi potee ngi doog a ñëw. defoon na ca gën yàlla noppi na eh, mais mbir mi daa neex ba mu ëpp mais tey rythme yi dafa desee ànd am am il faut nga jege si ma ndax réew mi macha allah dara nga fi yaag Saneex sama doom ji nga xam ne taawam la am tuddee ma ko kooku xeebu ma Saneex ñëwal nii yàgg sa group yow ak ñi nga àndal xale yu jongoma yooyu waaw waaw nee na nga seetaan TFM booy boo ko fi defatee di nga dem ak sa protège bu rose yow non fam yow garçon rose bi nang nga ko dindi laal ci bleu waxal waaw yow yaay doomu kan ci géwél yi waa cim yow sa yaay dafa baax moom ngay nurool ay ca sama bët yii di jooy nag après mbay dinañ ci wax ay ca maire baa ngi ñëw léegi jël si fukki junneem ba ngeen xam ni peut-être du tas yaakaar ana micro bi saa neex léegi Paco affaire bi face à face la yow wàccal ne yaag sa équipe kii taxaw ni ak équipe am atmosphère bi rafet vie wu bi doog a génn ay ca indi léegi yow taxawal ne Paco yow mën nga des nii rek waaw waaw yow foofu baax na waaw yow foofu baax na non Paco yéen foofoo leen neex man wàcce wu leen woon de bongo maa ni laa doon wàcce ah, a ànd ak saa neex kon dangeen a bëgg a tuqal jamono tey ay ca ki bi jox ma Sanex moo lay bàkk nee naa la Sanex la ak Bongo VIP ay ca ay kooku kumu ma ñëw ci dédicace yi ndax mënul ñàkk ndax nee naa la ñëpp a ngi toog di ma seetaan tey damay dem rek ci sama mag ju baax jooju nga xam ne nee naa la taawoo taaw taaw bari bokkul alintaa lay taaw nee naa la jigéenu caane seeri faatu madame Tall ah sama dàll bi léegi la na teppit mbay ma woola rek nga raw sapeur pompier yow daal xam naa ne dinaa dem ba sappor comme ñoo fi gën a efficace ma wax ko ñu wut boole la ci numéro 18 bi ndax yow macha allah sama mag jooju nga xamante ne nii tànkam lu woo ma seetaanoo ma bàyyi woo ma wéetuma ci dara ne da ko bandum nag lii rek la tukulóor yi wax ay ta mi ngi noonu damay dem nag euh, joxe dédicace bi foofu ca Italie euh, di ko jox nag ki nga xam ne mooy Binta Mbaw euh, Mbaw Ngaal Ude séeri ma sayeer sey ah yaayu Pape Mbaye ak Fallou ak Daali di ko jox nag sama yaay ju baax jooju nga xam ne lu ma ne ma nga ca bu may kontaan muy ree waaye bu may stressé du nelaw kookoy Papa Gueye xaar kookoy Kani Gueye Papa Gueye xaar tey fii fees na dell mbay nii laa ko bëggee sama rab a bëgg nit fu ma dem ñu fekk ma fa sama rab applaudissez tàccu leen lii ndax lii musul am fii yéen tàccu leen seen bopp ma ñow may leen fukki ni waaw cim cim man daal lii laa bëgg sama rab a mel nii rabu nit laa yor waaw heureusement ma nit ku nit ku bon mbay ay ca demaat di ko jox Kani Gueye Papa xaar baax na tama ji baax na fi dëgg la moo jaaxal tubaab bi defar nañ lu ne ba mu des bokk lii nag moo leen yéem ay ca poqataan yuñ ko boqee la ñu amut ma ñëw eh, dem nag di ko jox kani Guèye Papa gay xaar yaayu Uba sama doom jooju joojule jaara Guèye madame Guèye waaye nag di jox Kumba Dagg Guèye Guèye ma Sada Pendanaar ak ma maali Pendanaar ñetti doomu Pendanaar yooyu le nee naa la yow saxa nga bokkal Maguette Thiam nga bokkal na fay taaw macha allah pap ale nga bokkal nee naa la Touba nga bokkal Awa Ndiaye seen ndey ju baax joojooy seen yaay nee naa la li ngeen mel ba nit ñi naan ñii ni ñu mel da ko koo namp tàqamti ko ndax nee bu nday baaxee soow neex doom mënut judd mukk jadd macha allah mention spéciale ci Kumba euh, Dagg Gueye sama yaay jooju yaayu tuuba ñu daal di demaat ci ki nga xamante ne ni mooy Ndeye Marème borom Dakar Afro sama magu bopp jooju madame Cissé aji awo madame euh, madame Samb Séri Demba ma jël ko ci ligne bi ñu ngi may karkaree ak Ngoma Thiam Séri Oufie Thiam ay ayo ayo allo allo allo allo Poté. waaw kay yow laa doon seet. Amina na nga def. xam naa téeméeri junni bi yaa koy jël ndax ndax bii bii nuyoo bu leer. man namoon naa sa kanam. barki yonent bi moo tax ma taxaw def nii xanaa neex na la. ah namoon naa la. ba ma gisee noo def. yow Amina dëkk yow. kontaan nga ci man. ay ca sama yaay ji noo tudd ak foo may woowee. waaw man dara sax gis kanam gi rek doy na ma. waa dégg nga loolu. est-ce que di nga est-ce que di nga ko est-ce que di nga ko bamtuwaat lii nga wax est-ce que yow di ko bamtuwaat non mënoo cee jaar ma amul dara gis sa kanam rek doy na ma waaye bu la bu néeg yu ndaw yi neenalee man duma la neenal barki yonent bi parce que ma na moon naa sama dépense laa dajale rek ku sa yaakaar nar a tas ma jox la ko ah sa la namoon na sa barki yonent bi maa la raw nee naa la xolal bamba ah, bamba bamba fépp bamba waaye fii poté fii tey ak noir bi nga ah, gis nga ma moo duggee héritage day bandi vingt ans de carrière mu ne ci man lay essayer yu baax yii. <laughs> vingt ans de carrière deux mille vingt la ñuy dugg mu am ci vingt ans de carrière mu ne ma ci man lay essayer ay yëfam ñaw dootoo ko def jàpp na ma de ñàkk laa gis wóoru nga loolu. illaa ñàkk laa jox ma sa tour ma teral la bala ñoo ñëw ci néeg yi noo tudd. Fat Diop nee na tuuti. Fat Diop. oui. Fat lii maa fi. Fatou Diop nee na nan. Fatou Diop dama ni Fatou Diop man maay sa yaay di dama la ni Fatou Diop nee na yow sama yaay sama nen na. waa billaay billaay Diop a jubba Arona <laughs> Roqaya man daal tey xam naa ne njóobeen yi wàcc nañ ci sama kaw. Diop a jubba nee la borom maamu tool yu bari nee naa la balaa dundu gee jeex tool ba ñor. kenn du yéen sëtu la joor yi ay damel piir ngeen. Ah, barki yonent bi. indi micro ay ca maman Fatou Diop xanaa loolu la xale yi waxal neex na. torop ay ca yéen VIP lu ngeen wax ci Fatou Diop am ku sant Diop ñëpp toppee ba sama bu tuuru ba ñëpp xam ni moo Modou Gueye ko ñaw. wallaay te Amina. dañuy ñëw nag ci li nga xamante ne mooy mooy mooy mbir mi li tax ñëpp daje fi tey. Mm-hmm. ndax xam nga ne ku teg lal ak ay chaise yaa dajale ñëpp. Mm-hmm. bu doon oto rek la ñu teg dem lañ woote. Mm-hmm. waaye xam nga ne ku teg lal. teg salon teg table à manger bu am juróom benn chaise yaa dajale ñëpp. ndax ku teg maa ni ñu toog. <laughs> ba tax na fi mu ne yow rek laay déglu nga wax ma yow lan nga ci bëgg a gañe ma wax la nan ngay def ba gañe ko ci yi ma la limal nii yëpp xanaa oto bi waaw kay kon yow yaa woote dem oto bii nga bëgg incha allahu rabbi moom lañ war a def nag wax la <laughs> tout ni nga war a def ba gañe ko ndax yow mi bëgg oto bi yaa woote yaa woote naay yaa woote partira léegi nag xam nga oto bi ci numéro bii nga woote nii dangay ngay boo même bu émission bi jeexee. continuer di ci woote suba ak ak salaam. incha ci 4 heures ah tonton Pape. incha allah ak salaam ci 4 heures tubaab naan ko 16 heures olof naan ko ñeent. incha ci ngeen ci lañ war a teg oto beeg ay nawleem ñu xool. ku ci nekk sa morom daal di ko jël. incha allah waaye bu lool lépp rombee. sa xaalis a nga fi. 14 14 bu leen ko nëbbal ay buntam puusal. 14 raison yi nga xamante ne Fatick la tàmbalee. dugg kee dugg hmm. dem ñëw Dakar ñu ne déetawaay mu ne day hmm. paan ba Ziguinchor ñu ne waaw mu ne maatam Diourbel ñu ne déetawaay mu ne Saint-Louis fa la Youssou Ndour di tëgg tey Thiès fa la Sidi Diop hmm, nekkoon démb Tambacounda gi nga xamante ne kuy dem Sabadola di nga fa jaar Louga loo ba benn dëkk ñaari gaar ah ak Kaolack sama eh. dëkk juddu boobu ak Kolda bii nga xamante ne ku bëgg a naan meew fa nga jëm nee naa la kon di ci ubbi benn buntu lii ma ci lim yëpp pour nga jël li nga xam ne yaa ko moom ndax say naw la jaar nañ fi léegi gañe ku ne fukk man daal ma ubbi ndar dëkku teraanga la ndar du neenal kenn TFM ki bu gañee ndar bi moom damay rek daal di daanu ay ca ñu dem ndar ana bongo maan yéen ñëpp àndu leen ñu dem ndar ah, am ah, waaye yow yow yow yaa ko yor ànd leen ñu dem ndar wax leen ci ndar am bul seetaan ndar ñëwal ma ajimaas demal ma ndar ay ca ajimaas ma ndar gone gu jàng de nii lay demee ndar lan moo nekk ndar <laughs> ah TFM déet tonno Pape Dioum amul ci mbir mi <laughs> lii daa mel ni sax luñ ci bind nii téeméer ah, du téeméer <laughs> ah ci mama nag mama gàcce nga laa ma takkal sa dënn boo amee sër bu diis gaña nga ah. te li nga gañe il faut nga takk sa dënn balaa sa fita dem mama bugguma dara lu dara lu yóbbu sa xel mi maman ndax xam nga du alal ji du xaalis bi waaye bokk ak say nawle sa concours gagné day tiital nit ndax yëfu góor la aji maas dafa loo wax ci bokk ak say nawle daal di gagné ah, ah man yow di yow yaa téye coupe bi doo laajte fi mu nekk ku jël pied déedéet da ngaa téye fi ne doo laaj ku jël paie. kon nag distribuer les devoirs la Moussa yi di wax élèves yi <laughs> et eh, boobu ree bu ko reeti ci micro yi dolli ma ma xool <laughs> waaw madame Nianga ne chéri Cheikh Thioum xale bu xale bu réglé bu gàtt tànk boobu nga xam ne du nettali duggul ci lu yoonam newul dafa leer mene déglu leen ma ma wax defar leen seeni loxo te xam ne di ngeen tëgg Amina lu mu baatare euh, lu mu nar baatare basa basa ay ca na ànd ay ca déglu leen dem leen waxal amina lu muy bëgg a dem ku soxor mënu ko la baal ñoom sax xam nañ seen tur nañ seen tur tubaab yee laa bëgg a waxal lu baax ndax boo nee tubaab sax ñu geestu ndax léegi dem nañ ba xam ne noonu lañ leen di woowee seen dëkk amut li mbay xanaa kon fii mooy pays de la teranga Sénégal ah dem naa fu ne mais suma fu ñuy fawee di maye xaalis ñoom bañ nañ ko ba xale yi dañ leen di woo il est beau il est gentil tu léegi tubaab bi di di tontu non léegi noonu lay tontu ay ca maman am nga fi fukki junni appelay sa téléphone bi ndax na tey am nga fi bu dee sori woo ñëwal léegi ma jox la ko. ah xaw naa xëcc na ne tuuti. kon nag léegi bul coupé ñu jël sa tur jël sa sant. jël sa numéro bundu jël peru daal bi nga sol ban pointure la ndax nit ñi dañuy copier. bul ko yëg ci kanamu écran bi nag bul ko gëjati dégg nga. fi gëjati la ma naaloon lépp dama koy daal di bàyyi mbay. te xam ni ku ci nekk fa nga war a dëkk rek nga mën a toog. ah keroog fuuta bala moo neex. dafa lakka lakka lakka lakka lakk ba jeex ña nga xam ne ñoo fa dëkk daal di fa sampaat ay kër yu bees tàq fekk mbóot yeeg jaan yeeg lépp dee ah dëgg neexul ay ca kon fukki junni yi yaa ko moom ay ca jël leen maire bi nee naa la gañe na moom itamit fukki junni ma dawaat ci téléphone bi ndax tey dinaa mën a maye dédicace bii télé bu biisi waaye nag damaa bëgg ñii toog ñu defanteeg ñoom dara xanaa ku leen mayul xaalis sax laaj leen nu ñu tudd ñu bàkk leen doxal ma ci ñoom laajal ma kii nan la tudd waaw waaw kee laa wax kee borom casquette bi ne ko nu mu tudd ñu bàkk ko léegi <laughs> Aïcha nuyu nañ la soxna si ci loo nekk noo tudd euh, Nabou ah Nabou yow tey la moo fi nekk say tànk Amina ñëw rek convoi bi mel nii xale yi mel ni tempren lu xew lii daa ah, indi samay doom rek ñu ñëw euh, ñu xappi si si daal di xool si Amina poté kontaan ci xool bi ngi may xool Nabou ah yaa ngi kontaan maa ngi bég kay sama xol a ngi neex Nabou sa bakkan est-ce que nii lañ ko dampeel yow est-ce que doo mbokki vayde yi <laughs> ah mais biir bakkan bu rafet amul Sénégal lii du bakkanu olof Amina waxal dëgg <laughs> Aline Ndiaye jëlal xale bi ana doom ji ñu xool waaw cim ngi nii bébé ngi nii doom ja nday ja souhaiteel ma ko bonne loo wax Amina Poté <laughs> reetaan bi reetaan bi la dondu waaw cëm ay ca nga ne nu mu tudd aji aji maas nabu nee na nabu la tudd nabu nabu pote ay ca ñëwal ñu bàkk ko kon ngi xar c'est normal nee naa la tasaguñ fi yaakaaru kenn waaw dafa mel ne kon néeg yëpp am xaalis bu leen fàtte ni fukki junni rek ngeen gañeegum te fii benn ku yor biiru picc duggagu fi bay gaaw a doyal insisté leen te xam ne téeméeri junni bi laalagu leen ko 100000 bi ya leen ko 200000 bi laalagu leen ko nee naa la fii tey dinaa mayee fukki junni 100 200 ba téeméeri junni barki yonanti yàlla Muhammad xam nga yonanti bi nag dadul ay fo buñ ko bokkee ñun àddina bi yëpp it du tax ñu koy fowe barke yonent bi néeg yii ah téeméeri ju fi tëdd tey di nelaw waaw waaw xale bu jongoma bu téyee làmmiñam waaw waaw xale bu regle bi nga xamante ne macha allah madame ñaa la ñu lay wax sawi goro bëgg la say njëkke cliqué ci yow j'aime <laughs> chéri cheikh yaayu jaañ chéri jaañ déggal lool kookoy ñaa barke yonent bi kooku la jëkkëram nopp yem ci moom ayca ñu dem nag di ko jox ki nga xamante ne mooy sama xarit ba waaw allo ki ci bi di ko jox nag euh, Matar suba teel kooku moom dama koy wax gàcce ngaalaama Matar suba teel doomu ndeyu Papa Diouf Matar suba teel doomu ndeyu Paco Pot Matar suba teel nag doomu ndeyu Poté dafa mel ne góor a dugg de allo. allo ah, cim yow naan ngeen ne madame Diop yow it. naka la ngeen ne madame naan. waa. wax Adja Rokhaya Diop. ah tey la. waaw waaw ñii xoolal taxaw ñoom ñoo moom. xam nga Ndiobène yi. fii ma taxaw nii dama taxaw tey digg ndakaaru. Mhm. li xale yi naan bët ndakaaru. Mhm. tey nag fi ma taxaw nag fi la fi la fi lépp ndakaaru ne nag te ñoom nag lébu yi nag seen maama moom ndakaaru nag. ku ne xam ne ne la daawul bu jugee jinne yëpp xaar barke yonent bi yow Diop loo wax. man ba nga ba nga nekk ci ba léegi dama loolu laay seetaan yow laay bëggee. ndeysaan. yaa ngi may dégg ba du sa yaay gaañoo ma mooy wax. waaw kon yow yaa ngi may seetaan damaa foogoon fukki junni yee tax mais lii nga wax nii dëgg la. Youssou Ndour lu mu la jàppoon na la doon. dëgg la. Marcel Mawo maama mooy sama bàjjen. ndeysaan. ndeysaan na mbub sama mag la lu leer laa lay wax. dëgg la. dara jëy yeneen. man nag xale bu baax bu ma gisee dama koy paan. parce que danga ngaa baax. xamuloo ma suñu yaay ji. ndax nit day boobu rek dafa baax. ba ma demee màkk wala ndax sale xappi da ngaa eh, xappi. Eh, dëgg la eh. dëgg la. ay sama yaay ji fi ne fan nga fan nga ñuy woowee nii ci wakaam. maa ngi nii ci Wakaam cité avion. yaa ngi Wakaam cité avion. ay ca tur bi naka la woon yaay booy. Adja Roqee Diop. Adja ay ca Adja Roqee Diop. tey jii lii ñu fi teg yëpp ci ay loo. boo doon tànn yow ban ngay tànn muy lal bi oto bi <laughs> waaw waaw ak bëgg lu baax déggal boobu réew ndaanaan waaw waaw. kii noo def ma bégal ko waaw waaw xool bee sedd wuy ma lii nag xoolal lii nag xoolal wuy ma bu ma waxee bay daaneel ànd leen ak man lii nag kenn mënu ci dara lépp yàlla la yàlla suñu borom bala de moo bu yàlla di écrire ngay gome bala moo écriraat dalay effacer doogo bind yàq sa gom wuy ma meer néeg yu bari yii ñu bind ci Fatick bind ci Kédougou bind ci puus leen maire bi xool mu tànn benn néeg ci néeg yi ndax duma ko téye sax crédit di jeex <laughs> xoolal yaa ngi gis Fatick yaa ngi gis Fatick yaa ngi gis euh, Kédougou dëgg yaa ngi gis Ndakaaru Njaay fii ñu taxaw monument baa ngee dëgg yaa ngi gis Ziguinchor dëgg yaa ngi gis maatam ma teg ci Jurbel teg ci Saint-Louis fa la Youssou Ndour di tëgg tey maire baa fa woote ca stade ba. yaa ngi gis Thiès Sidi Diop fa la tëgg démb mi ngi nii ñuy wane ci néeg bi yaa ngi gis Tambacounda. Tambacounda waaw. ak Louga dëkku Jili Mbay. ak Kaolack nangan bii nga xamante ne Mariama Saara fa nekk ak Kolda wuy ma. waaw waaw néeg yooyu ma lim yëpp ban néeg nga ci bëgg tànn pour gagner li nga xamante ne moom nga moom. ah man Dakar laa ko mbaa. aja aji maas demal Dakar ma xool ay waay Dakar Dakar mbay mbay Dakar waay. Eh, eh, waa yow waa mene dëkk yi dem yëpp ay fukki junni la maire maire. maire maire na ñeme woo dem maire da ngaa gañe lu bëree bëree bëri maire gañe woo cinq cent waaye li ma fi waxal lépp mu génn ci sa xol bi tax na suñ borom fay na la ak yonant bi nga fi tudd léegi ndakaaru nga dëkk ndakaaru jox na la ñaar fukki junni lu poté naar <laughs> mère waaw man maa toll nii. dëgg la yàlla Muhammad. gis nga gis nga mère ñaar fukki junni yii. waaw waaw. teraanga Sénégal di la ko jox ak groupe Futurs Médias ndax. fidèle gi nga fidèle ci ñoom. wallaahi. ñu lay ñaanal loo ci def yàlla na barkeel yàlla na sa njiglaay ci barki yonantu yàlla Muhammad. sallallahu ba déwén ci heure bi biyee màkka yi ki koy gañe nga di ci bokk wallaahi mais <laughs> yàlla taxawu leen amin waay amin damaa bëgg bu dee comme wakaam nga dëkk boo amee ko yónni léegi koo wóolu waaw mu léegi ay njaay la mais nag bu uyu nañ ko jël fële mu jox ah. ñu carte d'identité am ak ay yëfam ba nuppi mu joxe carte d'identité moom. waaw xaaral ñu jël ko balaa kenn di la benn saay-saay di jaar ci suuf di wax ni ngay waxee naan man a maire bi doon fekk du dëgg. ndax nit ñi dañoo am fët léegi ndakaaru mënee nañ ñu ne. am na léegi kuy ñëw naan man na man a xaw ma na nga poté de <laughs> fekk day nax araam na sangara <laughs> maire. man yow mooy sa numéro daal waaw. ayca ñi ngi lay jël fële gañe nga ñaar fukki junni. gaawal nag balaa émission bee jeex ñu man la koo jox ci plateau bi bañ xam ne man du ma tas yaakaar cim xaw ma kooku xamaanu ma ko sax man ay kuy dugg ci man yaa ngi ci problème duma ko tontu dama koy bàyyeeg yàlla mu delloo ko gannaaw di wax kenn du ko déglu <laughs> barke yonent bi tas yaakaar fii télé bi ah xam nga li ma bëgg a wax waaye duma ko tontu dama koy bàyyeeg yàlla yàlla di ko gën a delloo gannaaw ah barke yo ah ku yebu bàyyi ma nii ma yàlla def mu noppal leen wuy ma yii sama yëf la man ay temps damay jékki-jékki bëgg def yëf ku leen ma ci topp yii laay def di jaabante bi ba yii <laughs> ko def wii ween ay ca mi ngi noonu nee naa la kon télé bi tey eh, mayeegum nañ Dakaaru nag eh, macha allah c'est nee naa la ndakaaru maye na li nga xamante ne ni mooy ñaar fukki junni dëkk yi ñu jaar yëpp maye nañ li nga xamante ne mooy fukki junni aji loo wax ci sama maquillage bu rafet bii nga xam ne ñëpp a ngi may bind message Moustam nee na dégg de que xam nga est-ce que xale bi nga xam ne moo tax ñëpp jongo ma mu tudd Amel Beauté Amel xale baa ngi fii ci Sacré Cœur ku ci bëgg rek di dem ay cérémonie bëgg a mel nii ma mel da ngay seeti ki nga xam ne mooy Amel Beauté waxuma lam ni muy maquillage eh tëgalal. looy wax amel ba tey attends eh le dédicace c'est pour vous attends ayca. est très content de vous. Aïcha, vas-y, le tegu, il s'appelle Thiebou micro bi c'est comment son nom. mon nom c'est Wim je viens de Belgique. Euh, Belgique. Est-ce que Sénégal c'est bon pour vous. c'est très bon très joli très tranquille vous nous. Vous Sénégal. c'est bon. très bon. très bon. parfait. tu connais ceebu non. tu connais pas. non pas du tu euh, euh, une plaque qui s'appelle ceebu ben euh, ma femme donc ça sera un ouais, peu dangereux. waaw je sais sa jabar nga àndal je sais Sénégal c'est la pays de teranga quand les blancs viennent chez nous euh, on va organiser quelques invitations pour que euh, vous montrez les plats de Sénégal. Il faut que je vais te montrer une très bon plat, il s'appelle ceebu euh, Donald madame. Euh, tu es d'accord madame avec moi? tu veux manger ceebu jën tu veux manger ceebu jën. oui c'est ça tu veux est-ce que tu tu la connais non. non je connais pas. tu connais pas. de Sénégal. yassa poulet. yassa ya oui yassa poulet c'est Sénégal. poulet c'est tubaab poulet c'est Belgique là-bas toi y a pas de poulet. oui alors. les riz mais c'est une autre manière ah d'accord je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord mais tu veux découvrir vraiment euh, un bon ceebu le plan national. ah oui. tu Euh, je vais t'inviter alors. oui chez moi hein? tu es oui. d'accord. oui alors euh, donne-moi l'autre euh, c'est comment ton nom. Euh, Yeroun. ah Yeroun. Yeroul. oui mooy nga yaru. Yeroul tu veux débrouiller wolof avec nous. Oh, wolof langue tu, tu parles français. ah oui un petit ah, peu ah, oui. tu comprends pas wolof alors. tu comprends peu, pas waaw ouais. ouais, euh, langue sénégalaise tu comprends pas. non la langue sénégalaise tu veux pas débrouiller avec nous. Euh, oui. Tu veux débrouiller la langue sénégalaise avec oui, nous. Oui, ça va, ça va. Tu connais salam alaikum si, si je te dis salam alaikum, toi, qu'est-ce tu réponds Alaikum salam. Ah, Tim <laughs> Aïcha, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est très fiers de vous. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bon séjour. Aïcha, merci. Mi ngi noonu ñu demaat ci téléphone bi euh, jëlaat keneen alo keneen ki ci ligne bi euh, ñu leen di jox numéro ki nga xam ne moo ma maquillé maquillage bi nga xam ne euh, macha allah bu la neexee day def ak yow mois. kooku mooy Amel Beauté euh, ku bëgg a dem ca Amel nag nee naa la la muy def maquillé moo ci gën a tuuti moom dalay fekk nga nekk ku nga nekk kaña mu def la nit dalay déformé daal ndax xale yi dañuy dem ba Europe di opérer seen lépp mais moom demal seeti ko rek am na ay secret yoo xam ne mënu ma ko tudd ci télé bi da ngeen di dem ngeen seeti Amel képp ku ci bëgg gën a rafet laa wax ndax secret yi mënu ma ko tudd ci télé bi ndax dafa bari da ngay seeti nag Amelia numéro téléphone am la 77 544 28 78. 77 544 euh, 28 78 kooku mooy Amel nee naa la clôture yi moo ci mën nee naa la lu rafet rek lay defar mun ma fee nekk sax di lim ndax ku xool sama kanam gi ci kuy soog a am bebe ak nii ma koy mii di ko maa di ko viva ngeen xam ni Amel laal na ma tey allo ki ci ligne bi allo allo oui. ko am mouchoir may ma foofu s'il te plaît. ay ca allo oui. allo maa lay dégg yaa gañe fukki junni yi la yaa ko gañe ah love you man it moi man tamit je t'aime maire allo. allo waaw maa man tamit maa ngi lay dégg yow booy. ça ma chérie noo def. maa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm. waaw. noo tudd. maman Sèye ba yaa fëntali yëpp. waa gis nga ma li ma sañ rafet na moo duggee héritage la. rafet na trop bi daal laa bëgg. Ah, nag bu la neexee nga ñëw fii léegi fekk ma fi ma jox la ko mbay. loolu xanaa kon man du ma tas yaakaar. déedéet. xanaa kon man ku ne ci man dellu gannaaw mbay man ne ca kanam. Mm-hmm. ah mm-hmm. ayca léegi nag kañ ngay ñëw ma jox la robe bii. dinaa ñëw ci kanam tuuti rek. fan nga nekk nii foo nekk ci Dakar. maa ngi nii Wakaam. booy ñëw nag boo amee tuufaay soxla naa ko de amoo tuufaay xanaa yow ah? lii de cat la waaye bi laay ba di jooy moo ma gënal mu daane ma yii lay def cat <laughs> ay ko xamul cat ay temps sa sëba lay naawal sa nel di feeñ allo waa xamoo leen cat yen Amina waxal xam nga cat allo waaw yaa ngi déglu télé bi te dégluwoo téléphone bi déglul téléphone bi ñu waxtaan <laughs> ñaan naa musu am ndox may ma eh bonjour vous allez bien waa côté bi eh? tout tout se passe bien waaw kay waaw kay yéen a ci jàmm waaw viens viens avec un bouteille d'eau waaw viens viens ici avec un bouteille d'eau waaw olof naan ko ndox tubaab naan ko l'eau waaw viens avec l'eau viens avec l'eau waaw yow noo tudd gañeel balaa tubaab yee ñëw waaw waaw restaurant ba laa yëngal waaw kaay <laughs> restaurant tubaab yi laa yëngal wuyu ma gaal balaa tubaab yee ñëw yow it ku ne xam na ni nasaraan mel ci rew mi wuy ma loo wax maman Soda laa tudd ma sooda fooy wootee maa ngi wootee Wakaam maman Soda numéro boobu nga vootee waaw suba ak jàmm salaam da ngay continuer di ci woote ndax mën ngaa gagné li nga xam ne mooy lal yi wala armoire yi waaw incha allah ay ca da bëgg buntu yi ma tànnal la ci benn buntu waa tànnal ma benn. ma tànnal la wala yaay tànnal sa bopp. yow yaa may tànnal yow. man maa lay tànnal. waaw ayca kon tànnal naa la Saint-Louis ubbil leen ko Saint-Louis aji maas ah? ah Saint-Louis tijji nañ ko ayca ma tànnal la ban dëkk tànnalal sa bopp bala moo perte. Ah, li ma ma dëkkee mu xool. waaw euh, Fatick Saint-Louis euh, Kédougou. Dakar Ziguinchor kenn jëlagu ko tee ngaa xool foofu dëkk boobu naat na de ay maatam. waa demal ko day taw lu bari foofu. ah ah waa waaw tubaab attends Ziguinchor chef attends tubaab je veux t'expliquer une chose moi je veux parler avec euh, waa mais je te je la parole pour que toi tu parles avec elle il a gagné waaw elle a gagné cinq cent mille euh, cinquante mille francs xam nga ne kon Sénégal c'est neex ah Sénégal c'est bon léegi toi parle avec euh, elle après moi je parle avec toi je fais un bon ceebu jën pour toi tout suite donne le cinq cinquante mille à à à elle. eh ben t'as gagné cinquante mille francs CFA. parle parle parle avec elle au téléphone. allô. T'as gagné 50 000 francs CFA Aïcha Aïcha Aïcha répète encore répète encore Aïcha ànd leen ak moom bu yuuxoo répète encore. merci merci madame merci merci. Aïcha répète encore madame. 50 000 francs CFA. ay tubaab lañ lii lañ xam. ay tubaab lañ macha allah mais ça va c'est comment son nom. Jennifer. Jennifer Lopez. ah ah Jennifer tu es belle. Ah, Jennifer tu es gentille. ah belle sourire. Ah. elle comment elle s'appelle. Maïlis. Maïlis Lisa. Maïlis, euh, tu es, tu es quel, euh, tu habites où? Euh, where, where is you from alors? Euh, la Défense. La Défense. À côté, côté Opéra. côté Châtelet. Champs-Élysées. champs France la dëkk xam na fa ok tu connais une une danse qui s'appelle ceebu jën. tu veux découvrir. Aïcha vas-y avec ceebu jën xaaral xaara ma wax ak gagnante bi ba pare euh, la gagnante allo allo waaw gagné nga fi fukki junni de nga waaw ah. ma bàyyi laag waare yi nga wax ak ñoom pour mën a jël si li nga xam ne mooy sa fukki junni ay ci ñamaleen ko ceebu jën bi eh attends attends ñu àndandoo ndax ñu mën koo dégg xoolal la danse s'appelle ceebu jën waaw c'est le c'est le le le le le danse euh, c'est le plat national ici chez nous ah donne le micro euh, euh, donne le, nom de danse non c'est pas ceebu jën il s'appelle donne jox ko sa neex jox ko bi il s'appelle ceebu jën très bien Aïcha Aïcha danse avec nous danse avec nous Aïcha demal beaucoup. Est-ce que vous êtes content avec nous hmm. Mais comment tu trouves ici, Sénégal ah ah il y a du monument et papa yaay doom. Ah, tu connais le monument, il y a une mère, papa et fils. Regarde Anna Moussa. C'est bon pour vous? Oui. C'est bon, hein ouais. Vous êtes contente Aïcha. Mmh. C'est euh, euh, la statue de la liberté. Oui. Et la maman montre Gorée. Ah, ok. Je crois que c'est ça, non Hein Je crois que c'est ça. Mounala C'est pas ça ah, l'histoire, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Ben nous, on vient de la Martinique. Nous. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez vrai. la Martinique C'est vrai. Vous connaissez la Martinique Oui, ah ben je le connais. Nous connaissons Martinique. Nous. Ah bon Créole, nous, parler. C'est vrai. C'est ça. Mais Salinou Martini. Comment Salinou alors. C'est qui est Martini Bonjour à la Martinique. Oui. Bon ben, bel bonjour Martinique, oui. parce que nous Sénégal et oui. euh, toute belle belle. Toi, quoi. tu es sénégalaise Martiniquais. Tu es sénég... Qui, ah. qui Martinique ah ah fa la nekk. waaw ma man booy làkk tubaab di ko neexal damay tiit. quand tu parles quand tu parles. quand tu parles avec moi en français. ok quand tu parles comme ça comme les blonds. Euh, non mais je parlais créole là en fait. eh bon dia. Voilà. bon dia. bon dia c'est qui ça. ah mais ça tu parles créole. oui mais créole c'est bon dia. ba savon. bon Dieu. non bonjour. bonjour. dama <laughs> ko bëgg a dofloo. <laughs> attends attends ris pas attends. oui. <laughs> mais aujourd'hui moom euh, vous êtes contente de nous. Ben c'est génial, vraiment. Génial, hein? Toute bagaille la belle. toute bagaille la belle, ça veut dire tout est bien. ah kon nag monument bi ñun nag TFM a ngi leen di defal dara waa merci jërëjëf. atia dellu leen seen place waa mer merci beaucoup. merci eh eh moi moi demande tout de suite l'eau. où est le l'eau fraîche. où bu sedd. ya la sa restaurant. y pas de l'eau. Aïcha va me donner une l'eau. Ah, s'il te plaît. oui merci beaucoup Aïcha merci Aïcha merci beaucoup Aïcha mi ngi noonu Aïcha joxaat ma téléphone est-ce que xam ngeen benn affaire monument baa ngi soog a neex de dafa leer ndax ki moom monument bi ndax xaw ma mi ngi ñuy seetaanam déet xam nga ki ko moom mooy sénégalais waaye teg nañ ko ci loxo kenn TFM a ngi def yëf ndax ñi ngi ñemeloo tubaab yi te dëkk bu amul tourisme du neex fii la rek fii la rek ayca mi ngi noonu ñu dem jëlaat keneen ci téléphone ndax uh, fi mu nekk ni nee naa la heure baa ngi daw ayca jox ñu keneen ku nekkaat ci téléphone bi nee naa leen xamoon ngeen ni le retour de Amina Poté nii rek lay demee dem nag di ko jox Dieynaba Ndiaye madame sek ak uh, naaru maam lii sa Mambouré di ko joxaat uh, anti Aminata di ko jox anti maam faatu sama turandoo doom di ko jox nag ki nga xamante ne mooy maam lii sa bu Gambi turandoo lii sa bu ndaw di ko jox yaayu Zeyna maam lii sa mam li sa Mambouré nee naa la Mambouré soose doomu ndeyu jànke Mambouré ak euh, faatu Ñanko doomu ndeyu madame Seck ba Ndiaye ak Peko Pot ak euh, Mage euh, ma jigéen Guèye borom meuble yu rafet yi ak ki nga xamante ne nii nag mooy sama xarit ba rek Matar suba teel doomu yu Papa juuf di ko jox Modou Gueye héritage nee naa la sañse bi rafet na chéri Bichiri ak Ami nee naa la kon yow yaay yaayu Falloog Saliw ak Maman Ndioba ay ca jox ma ki ci ligne bi ñu dem allo Allô, Tarina Oui, ma chérie. Ça va Ça va bien Aïcha noo tudd yow Absa Absa Absa foo ñuy woowee jëppal Aïcha Absa comme jëppal nga may woowe est-ce que mën nga maa may ma nuyu sama benn xarit doog a ñëw ci yaw d'accord Aïcha liir numéro yi daal di ñëw ci yow waaw cim en tout en tout cas attends parce que moi attends moi si non je veux la bouteille mais je veux pas la protège de bouteille étiquette l'étiquette euh, tu connais que c'est une publicité hein mais toi tu es génial waay yow tu n'es pas gentil seulement tu es génial <laughs> voilà merci beaucoup madame merci ay tubaab lañ xoolal nam ko tafee ci loxo bi yóbbaale ko gàcce ngaalaama eh je fais oui ma blanc moi je fais du tagg pour toi donne-moi encore ton Jennifer déglul li la ñuy di waxal écoute écoute je sens ay ca waxal ci Jennifer Jennifer neexul yéena waxal Jennifer mooy Jennifer et Jenny elle iweenu waxal iweenu uyela eh, Jennifer yelela eh, merci beaucoup Jennifer franchement on est trop content de toi merci beaucoup ma chérie merci bon séjour allez ciao Aïcha mi ngi noonu Sénégal lii la dëkku teraanga la nee naa la ku ci ñëwati ci fii di di liggéey boole ci nit ñu weex ñi ndax euh, ñu am lu ñu yóbbu parce que ñoom itamit dañoo bàyyi seeni réew ñëw fi vacances allo waaw allo ah, yaa ngi ma doon xaar kon waaw waaw léegi même ma tudd numéro yi ñëw ci yow wala ma ñëw ci yow directement waaw ñëw ci man directement nag crédit maa bañ mu jeex ah crédit bi da ngay bañ mu jeex waaw ndax temps yëpp maa ngi woo waaye temps yi man nekkuma fi woon kan ngay woo temps yi ñoom abaaye fi ne woon ñoom ñaatam ak beseel ak ñooñu man maa ngi soog a ñëw. waaw. ah. bi jeex na. déedéet des na. Ah, boo bëggee nga coupé ma woo la loolu du dara. waaw grand baa xam nga li mooy sénégalais gëmut boppam. maa ngi naan ko coupé ma woo mu foog dama koy nax <laughs> ay ca léegi ñu àndandoo ci jeu bi. léegi yow euh, lan nga bëgg fi mu ne 500000 200000 50000 loo ci bëgg. 500000. ma jox la 500000 yi. ayca léegi fi mu nekk nii euh, euh, soo amee 500000 yi ñaat at nga am ba pare. 14. yaa ngi am 14 ans bëgg 500000 toi aussi ma chérie belle. man tamit sama yaay yaa bàyyi leen di taafantaloo seen yaay ngeen di dem Sandaga di ko fa jënd ay. jiin ak bu ndox aaw. allo Amina. oui ma chérie. Issa waay ci loone man la Aïcha. ah da ngaa puus kooku dugg wala yéen a ànd. déedéet déedéet ab man la ab sa woo léegi man la yaayam. ah bu bañee man la bëggal ci xiiwal yi. léegi nag nee na 500000 yi yow la koy jox. waaw nee na man maa yaayam man la paas waxal tata Amina. ah man la bëggal ci xiiwal kon nag xaaral ma def lu gaaw kon parce que mi ngi may wax naan ma sama crédit bi bariwul. waaw loolu la wax wa yéen a ngi may woowee ban côté nii. jëppal jëppal. lan ngeen wax euh, ci ci feet yi ak TFM ni mu leen koy joxee est-ce que seen xol a ngi neex. ah ñoo kontaan lañ tey bi ma la ci télé bi dama gën a kontaan naat. sa xol dafa gën a neex. yaay yow sama samsu nga. dee déedéet. ah gis wallahi Amina. loolu bala ma laa jox xaalis il faut ma def ci dara yow la madame nan ba nuppi ma madame Mbaye la madame Mbaye. ay ca loo wax ci madame mbay am. ah kontaan. madame Mbaye. <laughs>

ah ma dugg Tamba maanaam accéléré nga sa bopp daal maanaam xaaroo ma escale fenn <laughs> lii la nit da ngay am fulla ah, madame la may wax waxatu ko nee na Tamba la jëm maa ngi koy wax liñ lay wëyal ndax neex na mu yóbbu boppam Tamba madame kon ñu dem Tambacounda. waaw. madame Mbaye. oui est-ce que mën nga maa wax booy dem Tamba looy romb. ah doom bu yësoo gis nga Absa ngi naan ma bàyyi ma wax ak taa Amina ma ne ko bàyyi ma wax rek. <laughs> waaw na yaay ji wax parce que Absa te mu juum ci ah. question yi booy dem Tamba lan ak lan ngay romb yan dëkk ngay romb. bu may dem Tamba. waaw. ah dinaa romb Tamba nag mosuma fa dem Amina waa ndi samay sœur nga fa. Ah. ak samay waaw. Tamba de am naa yaakaar ne du tas sa yaakaar ndax xale yi fa nekk nañu rafetee. Ah. ak dëkk ba naaj ba na mu baree te naaj dafa important ndax tubaab danaan. naaj bi ne Sénégal ñun exploité wuñ ko yéen xamoo leen naaj mooy tax réew nekk milliard yow looy ree may wax ah ah kontaan ci yow rek Amina sama <laughs> kon ubbil ko Tamba ñu xool ñun dañ koy remboursé waaw ah, ah di <laughs> ce que foofu Tamba la man nag gañe bëgg naa ko mais gañe yu ëpp yii tonton Pape am na ko gañee ti de <laughs> a ah, mais Pape Cissé mbir mi nandal ma boog ma xam Tamba man xamatuma sax sa tur bi mbay ah. man daal waaye yéen ak yéen ñi fi gañe fukki junni fukki junni yi ak cent mille cent mille dama ci doon comp bu ne ndax ku leen di teral da ngeen ah. koy da ngeen koy jox récompense ah léegi Tambacounda yow gañe nga fukki junni merci merci kontaan ay defal mais moytul mu dagg parce que damaa bëgg ñu waxtaan ci fukki junni ndax kuy kuy jooy di ñaar dërëm ba cinquante mille ñëw mhm. sa xel war naa dal mbay mhm. ah dal na dal na yow bi changé na léegi ña ngi lay jël ca rési uh-huh. ña ngi lay jël ca rési pour pour pour pour dencal la sa fukki junni dégg nga na nga joxe tul bu leer ak numéro téléphone bu leer ak pointure dàll bi ngay sol lépp na leer boo fi joxee ya nga ñëw ñu nattal la 39 fukki junni yi du dem ay ca mi ngi noonu mu nee naa leen euh, tante leen seen chance nag nee naa leen Euh, loo bu mag bi suba la ak animateur bu mag boobu la di papa Cheikh Diallo nee naa leen dana leen ko jox ci njekk ak teraanga ak yar teggin nee naa la liñ fi teg lépp yéen a ko moom muy oto bi di lal bi table à manger bi cuisinière bi ak frigo bi nee naa la salon bi ak li nga xam ne mooy euh, buffet bële nee naa la loolu yëpp yéen a ko moom euh, kon dee leen woote nag ci numéro yooyu ma leen joxoon 828 72 96 828 72 22 22 828 65 65

xaaral bala ñoo dem ma bëgg nga woyal ma chérie Lamine Kébé madame Kébé yaayu Mouhamed Ndeye Maguette Cissé merci beaucoup ma chérie Ndeye Maguette euh, maa ngi gis sa message léegi jéeg boobu jëkkëram nopp jéeg bi muñal jëkkëram waaye jeeg bi jëkkëram jox teg place jéeg bi nga xam ne jëkkëram moo ko nopp nekk ci wetam di ko wéetali wéetoo benn yoon ndax lamin ay ca sànneex demal ci nday Maguette madame Kébé madame Kébé neexul yéenam nga jël def ci yow alal xoolal nee leen jigéen balaa baax day gaaw a ree jigéen balaa baax jom ja day bari di say lu reex di wax lu baax dee jongama wax leen jongama waaw merci beaucoup jërëjëf bala ñoo tëj émission bi nag ñu ñëw ci li nga xamante ne nii euh, mooy euh, ñi ñu doon seetaan di leen jaajëfal aji maas mi ñu àndal euh, saa sama doom ak waa Bongo VIP Pokola Zaz ak ñi mu àndal ñëpp merci beaucoup ci aram wañ sama yaay ju baax jooju naaru bel nee naa la yow mention spécial doomu ndayu Daba Diouf waaye kenn du ki nga xamante ne nii nag mooy taaleemu Njaay waaye tamit ki nga xam ne mooy taa Nduura ah sama sama sama sama sama sama docteur bu baax boobu nekk ci hôpitalu Médina ba taa Euh, ñu koy nuyu bu baax Zeyna madame Seck moom ak yaayam yaayu ma ngom ah ndaxte sama xarit ba borom grand théâtre Adja ombali ko waaye kenn du borom élégance élégance boutique wàcce na ci dëkk biyu doy waar ah nee naa la di nuyu nag nday euh, euh, nday xujja xumma chéri monsieur xumma moom la jëkkëram nopp nday xujja nee naa la lépp kenn mënu koo lim Amélie Bien madame Thiam yéen ñëpp Binta Mbaw Amélia Fashion moom i tamit participé na mais kenn du moo duggee héritage e jëlal lii lii jara xool ay ca ceebu jën bi nag damaa bëgg bu ngeen ko tëggee ñi nekk fii ñëpp nañ tàccu ma wàcc ak samay enveloppe nag jox ñii seeni récompense ay ca baaya baara mbay ay ca leen seen bopp ma xool jëlañee eh jëlañee